depuis bu ma bàyyi jàng école ba léegi maa ngi sant yàlla bu baax parce que maa ngi daan suma doole am naa suma métier comme architecture laa doon def ko def coffrage di si ñafe diplôme na diplômé naa sax euh, CDE waaw am lu mu war a am vraiment ay millions sax mun naa wax ne ay millions lekk naa ko fii mais dans l'air parce que situation de vie bu fi nekk aussi moom moo war a loolu daal parce que Dakarou da nga fi nek di liggéey amna na benn point bi nga xamni ne ni boo fa tegul sa tank ba dériver bobu mom señ bi c'est très grave te gis na ne fi jigen ñi bëgg nañu la dañ la sopp lool ñepp ngi lay romb di lay nuyu alors sa digënté jigen ñi Dakarou waaw fofu tamit day yomb trop parce que fi parfois da ngay gis lu bari da nga gis ay jongoma yu bax yu nga xamni ni vraiment sante yalla duñ bëgg dara yow rek la ñuy soxla yow rek la ñuy soxla sa doole rek la ñuy soxla ñeneen ñi ñoom sa xaalis la ñuy soxla mel nu leen neex war a mun a am lu nekk ci biir néegu sëy mais loolu du leen intéressé nga gis góor boo xam ne tamit dafa war a mun a am di am as tuutam di ko dajale war a takk jabar mais moom tamit dina am leneen li nga xam ne moo koy motiver ba nga xam ne nii moo koy sànq pour toujours dans sa vie parce que mun nga nekk xale bu ndaw nga nekk am avenir du ñefe nga am ay wajur yu baax yu nga xamné ni vraiment ya nga judd ci si ñoom ñu lay defal lu nekk ci aduna bi yo xamoo dara lu naxari ci aduna lu baax rek nga xam comprendre nga bon ci biir affaire bobu nonu yo di nga dem benen moment ñoo so tourné sen ginaaw so leen gisatul day metti dina metti benn côté dina neex tamit benn côté parce que soo nekk nga xamné da nga top sa bànneexu bakkan ak sa bakkan ça ne va pas du tout. parce que da ngay dem ba màgget fi do def dara lu nga xamne lu nga xam la war nga fi mëna am sa kër bop war nga fi mëna am lu nekk lu bax lu doom adam di am rek war nga ko mëna am yow da ngay xam da ngay am mën nga am lu ne war nga mëna jënd auto bu rafet dawal ko normalement su fekkon tegoon nga sa yoon di dox normal war nga mëna dawal auto bu rafet tabax kër gu rafet am jabar yu rafet lepp lu nga xamni mom moy Euh, comment dirais-je lu moo la war yow góor ci kaw àdduna bi def quoi mais benn moment bi nga xam ne loolu yëpp da lay réer day réer sax sa science parce que moment yi nga nekk mun nga nekk di naan sàngara bala ngay def ay di tux di dugg ci yeneen détails yu nga xam sa détail yooyu mun a desciencer ba nga xam ne nii yooyu yëpp ko calculer da ngay perte sa vie lu bare bare bare bare amna na benn moment bi nga xam ne da ngay regretter da ngay regretter yow yow fi nga xam ne nii nga jaar parce que fi nga jaar baaxul yoon bi nga jaar ni baaxul da ngay kalku sa diggante ak sa borom aussi parce que dégg léegi gaaw na dara bu la dalee loolu problème la denculoo daa ngi liggéey économiser woo dara defaloo benn épargne da ngay waaru boo amee problème bu ndaw yaa problème Dakar waxuma dara sax mais dafa nekk dëkk bi nga xam amul coloré parce que fii mun nga fi def 20 ans bés boo amee problème bu ndaw rek yow pare nga te futi waaw problème foo dëkk sax fi problème la parce que premièrement location est dafa cher dund bi cher na lepp dang koy fay ndox boy nan sax dang koy fay waaw fi lepp amul ben affaire bu nga xamné ni dul problème mais da ngay liggéey góor moom da ngay liggéey bon d'accord bon yaangi def liggéey di yàq di def lu nek mais na nga liggéey dal mom mo gën tamit def di def lu bon pour am xaalis wala leneen ak leneen ak am na am na am nañu demee noonu am na ñu ku nekk daal léeg-léeg nga gis ko nga xam ne nii yow li ngay jooy keneen na gën a siiw mel noonu sax xëy na am na nga tane ñi nga xam ne ni ñoom du loolu moo leen am na leneen leneen yeneen problème problème yi ñoo yow euh, ça allait bien jusqu'à ce ba nga daanu ci accident lépp basculé amatuloo foo dëkk si ay tabax nga dëkk alors euh, vie bi changé si yow. Euh, doonuloo woon màndi certes mais affaire jigéen moom danga nga siy dem bu baax ba fi mu nekk nii am nga ñetti doom yoo xamante ne ni ñoom ñëpp ñoom ñetti ñëpp daanaka juróom euh, ñetti weer la am ay liir lañu. am nga koo xamante ne ni fukki at ak juróom-ñaar la am. waaw expliqué ñu dund boobu. waaw boobu aussi problème mu xale la rek. taxawal taxawal. parce que boobu problème xale la rek. bi bi 7 taaw mu ngi am 17 ans. waaw lolu problème xalé la won waaw mais si sa 49 ans ñetti doom ngi ni ku nekk ñetti weer la am fi mu ne ni waaw. waxal lo ku nekk non la démé waaw ku nekk rawantuwul wala morom ay ñetti weer sax danaka sok lo ci kaw yoon bi la nga dox ta tasanteeg nit bon nga xol ko jëm mu jox la ne kii xëy peut-être. nek nag nga xam yeen ñaar war ngeen mëna collaborer nga waxtaan ak moom ngeen nek nekkin bu nga xam ne du nekkin bi nga xam ne nii duko gënal sax mom parfois parce que mom ci bopam dina nek quelqu'un ki nga xamni ni peut-être bëggu na dara ci bopam mais amul ay moyens parce que lu bari ñak mom mo koy waral aussi yo aussi peut-être li ngay def nonu gënlu la mais il faut nga def ko parce que mu nit mënul nek comme robot rek toog nekkuloo ci dara nit il faut mu suuxat bakkanam tuti pour mëna a légaliser nga gën ci yenn détail sey quoi comprendre nga lool aussi amna lool aussi amna ñet ñoo ñep lool dal na ma ci ñom kenn ki d'ailleurs fan yi rek la fi joggé

kenn rek la ci nek maintenir di côté chaque semaine une fois lañ ci gissante parce que wañi daal daal gën na ci yu bari dal yu nga xamni ni ay détails yu indi ay problème yow daal jigen moy sa problème jigen waaw yow da nga bëgg affaire bi bu baax <laughs> waaw bu baax baax waaw affaire mom vraiment dama ci dem ba jeex mais problème moy actuellement ni mom gën na gën na gën na ci détail ma ci gën génn nak bok parce que lu bari li nga xamni may gis na ni mo doon yak suma xaliss bàyyi ko lu bare bare li nga xamne ni nii la mu jigéen chaque jour kuma gis mu rafet ma top le wala nga top ma ma nangul le nga nangul mak yoyu yoy deg démystifié naa ko parce que dama ci sonu déjà parce que dund vraiment 49 ans dund lu nek gis lu nek tamit vraiment din boobu la yalla namen baxal di nga changer quoi. légui yow. 49 ans ay liir ay doomu lire nga am fi mu nek ni waaw. ki mujjé juddu kañ la juddu. yàggul yàggul man pas trois mois même pas trois mois. keneen ki. mais ñoom ñëpp même pas trois mois la dañu tegaloo. yaa ngi quatre yoo xamante ne ni kenn du si sa soxna yaayam. waaw. sa regret bi gën a fort si sa àddina lan la sa digganteeg sa borom sa digganteeg nit ñi sa digganteeg ñàkk xaalis sa regret bi gën a fort si sa àddina li nga gën a réccul lan la fi mu ne nii. waaw malgré temps bu yëpp li ma fekkir noonu yëpp d'accord. mais li ma gën a regretté mooy sama diggante ak suma borom parce que man je préférais man def lu nga xam ne ni loolu yàlla ak yonent bu ñoo ci ànd ma sell sell bi nga xam ne ak set bi nga xam ne ni boobu la yàlla soxla ci doomu aadama bi ci mission bi nga xam ne moom la war a accomplir ci yoonu l'islam comprendre nga kon donc boo dérivé noonu ci yoon boobu noonu di nga dem benn moment bi nga xam ne di nga toogal toog xalaat sa bopp di nga tiit sa bopp tamit di nga moytu aussi parce que on sait jamais parce que nit day dee parce que dee mi ngi ñëw da nga koy xalaat da ngay ne gis ne yow gënuloo ñuy dee ñuy dee ni ñuy dee noonu yow un de da ngay dee noonu te soo demee yow man xam da nga layoo sa borom tamit ci yenn détails yi nga xam ne nii yooyu mi ngi arrivé mais parfois aussi tu vois jigéen ñi tamit attention boo koy wax xale yu ndaw yi dañ moytu bu baax parce que jigéen ñi sont très dangereuses parce que da ngay gis jigéen ñi nga xam ne tamit ñoo yóbbee góor ñi lu bëree baree bëri dans la vie Wow, ñooy digal yi nga xam ne nii ñoo yóbbee ñu bare bare bari bari dans la vie parce que da nga gis léegi même jigéen bu am jëkkër dem di am far. te yow dégg naa borom jëkkër yi yëpp ngay rajaxe. fii lépp nga fi gis. parce que ñooñu yow laa wax yëpp ngay rajaxe. ñoom doo ko xam ñooñu doo ko doo leen xam parce que ni ñuy ñëwee ci yow moom moo tax. da ngay gis borom jëkkër bu fanaan ci gannaaw jëkkëram xëy suba dem uti faram nekk ak moom. yow baa ngay xam fekk su trop tard la plupart ça arrive barina na lolou loolu lu ëpp fii borom jabar yi tamit nek di doxaan ak yoyu lolou tamit barina te yoyu yëpp yow mënoko éviter. légui loy conseiller ñi nek si lolou tay actuellement ni gëna bi nga regretté lolou yëpp nan nga leen di diggal nan ngay def ba ñom duñu jaar fi nga jaar. xanaa ñu jaamu yalla ñu jaamu yalla ñu ragal yalla ñu moytu lu bon parce que lu bon baaxul tôt ou tard da koy regretter.

ak yu demee noonu. kon nga gën a mën a fat gën a mën a fat jigéen ñi. waaw maa ngi si booru géej aussi libre na di nga mun a di nga mun a happy def lu neex ak yooyu yëpp mais. kon pareeguloo pour bàyyi enfin non da ngay bàyyi. da ngay bàyyi pour bàyyi. kooku moom jóg naa ci dèjà pour waxal xale yi wax pour ñoom ñu a dugg ci genre life boobu noonu parce que life naan sangar tox yàmba ya, jigéen bu bon ko loolu baaxul te milieu bi ñu nekkee nii ñun gox bii mo gëna dangereux ci gox yi nek ci dakar océan virage almadi mamel jëm kaw fofu c'est très dangereux parce que lu fa am yépp lu neex bakkan kese mo fa am bu amé tout xaalis da ngay def lu la neex amu ben problème yaay bañ légui li ni ñu défar ni da nga préférer ñu wan ko adina bi yépp pour ñu moytu wala da nga bëgg ñu ban ko wan kenn non man bañuma nit ñi gis ko bañuma nit ñi dégg ko tamit mais buñ koy déglu nañ koo dégloo ak seen science ko comme li sunduur di wax rek ñu dégloo ko xel bañ koo dégloo xol parce que loo dégloo si sa science di sa amee njëriñ mais boo ko dégloo sa xol rek mun na la sànq waaw parce que lu neex dafa neex waaw mais lu neex loolu ngay topp ba nga xam ne ni moom moo lay mujj dérivé sànq la yóbbu la kër ak yomal xayaam safara ah ak te fii ci bi tamit attention on sait parce que xamaguñ fu ñuy mujjee xamaguñ parce que fu mu toll nañu door a débuté rek deeyaguñu fii ba ay quatre-vingt pour cent année lu nekk ci diggante bi mun na fa arrivé te suñu borom moom ku mu gërëmul moom yow moom c'est fini c'est perdu. léegi ñi nga seqal ay jabari jàmbur ñu ngi si ay élèves ñu ngi si ay xale ñu ngi si ay mineurs ñu ngi si ban genre lañu waxal ñu sa gémmañ ñooñu yëpp ngay gis noonu ñëpp ñeneen ñi ñàkk moo leen di dugal ci ay ndax ndax am na li ma wax ni ay jabari jàmbur a ngi si ay élève a ngi si ay xale ngi ci ay mineur a ngi ci ku ne mu ngi ci actuellement tu vois de n'importe quoi ndax ñi nga séxal laa wax ndax ñooñu ñu ngi si ñi ma lim ni li nga wax noonu yëpp loolu yëpp mun na ci nekk si biir ndax nekk na si wala nekku si mën na ci nekk nekk na ci sax nekk na ci waaw parce que loolu yëpp mënu si ñàkk nekk quoi parce que société bi lépp a ngi si biir dem léegi vidéo bi may nga ñu pour ñu teg ko wan ko àddina bi yëpp ñu gis ko waaw wala déet. ah bu la neexee teg ko fu la neex teg ko foofu. léegi say mbokk ak yooyu bu fekkente ne ni euh, daf leen a naqari nag. non du war a mun a naqari sama mbokk parce que man c'est un artiste man artiste la man artiste la de nature. kon nel waa Sénégal TV jox na leen autorisation pour ngeen teg vidéo bi. jox naa pour ñu teg ko.

dof ma gën a jàpp moom da ngaa mandi <laughs> mandi wala seulement dañ ni ñu waxtaanee il faut ma wax la li nga xam ne réalité bi nga xam ne moom la ñu dund actuellement gars yi dañoo gaaw si da fekk muy mande fekk muy nelaw ngi jàkkaarloo yow diñu xool loolu dara si sa conscience tranquille non non li nga xam moom laay dund rek loolu laa lay wax quoi parce que man tax damay bind damay bind di di di lu nekk dama ko def parce que je suis waaw sa kàddu gu mujj la gëñ nga dem si say doom eh, ay gëñ nga seeti say mbokk parce que mooy maneeku juróom benn juróom ñetti weer yaa ngi fii si ndakaaru bien vrai bien vrai huit mois de plus maa ngi fii doo mën bouger donc parfois tu da ngay bëgg a bouger da ngay bëgg a génn da ngay bëgg a seeti mbokk yi lu nekk da nga koy bëggu mais aussi yow sa yite bopp rek sa yite bopp rek loolu ay problème fii si ndakaaru actuellement nii parce que vie bi ci boppam dafa cher life bi ci boppam dafa cher vie bi dafa metti fi xaalis lo ci am du doy du doy dara du doy fi dara du doy ndaka dara du doy mbok yi sax mun nañ la méré parfois sa loxo da fay wara dem xam nga nga wara am am yu bari yi nga xam dang fay taxaw do fu mëna dem parce que yow sa bop ci a des problèmes da ngay pass da ngay fay restaurant fi ngay tëdd dang koy fay fi amul lenn luñ fi may amul fi Dakar kon mën nañu xamné yow ku ànd ak sa sago nga yaangi liggéey sa monument de la renaissance waaw waaw kon euh, sa kàddu gu dia mooy di leen sant leen gërëm di leen ñaan parce que li def tamit baax na parce que dina tax ñu ñu mën a wax li nga xam ni nit ñi buñ ko déggee dinañ mën a comprendre li ci kaw yoon bi ni ñu nekkee ak yu demee noonu quoi mais pas euh, dañu nekk ci xam nga rek aduna moo demee noonu quoi aduna moo demee noonu daal waaw aduna moom kenn mënul xam rek yàlla da moo mun daal xëy defar yëpp baax kon ki lay déglu nekk mu dégloo la xel te bañ la dégloo xol. waaw na ma dégloo xel bañ ma dégloo ak. waaw loolu la ko ak xol xol d'accord. waxal loolu. na ma dégloo xel te bañ ma dégloo ak xol. jërëjëf dëggantaan.